mais lu xew Sénégal dëkk bu neex la koi ay jékki-jékki rek ñu taf sa photo fu ne nag gis naa ñu taf ma fu ne taf fa Elimane Lam di ñu tudd ci ay problème yoo xam ne ñun yëguñu fekkewuñu créer nañ ñu fi sax convocation mais lan lañu ñuy convoqué ak lu xew ak lu ñu def on est même pas concerné ci li ñu di wax yëguñu ko sax li Sénégalais yi di wax ak ni ko nit ñi déggee noonu lañ ko déggee ki am jafe-jafe nañ ko ñaanal yàlla yàlla defal ko sutura génne ko ci li mu nekk defal ko tawféex mais jékki-jékki rek tudd ci ay nit naan di woo nañ ko convoqué nañ ko fenn lañ ñu convoqué woon yéeguñu sax li xew on n'est même pas courant de ça vraiment daal gars yi nañ dal naatal xol yi te yéeneente jàmm jàmm rek a neex jërë ngeen jëf asalaamaaleykum mais lu xew Sénégal dëkk bu neex la ko ay jékki-jékki rek ñu taf sa photo fu ne nag gis naa ñu taf ma fu ne taf fa Eliman Lam di ñu tudd ci ay problème yoo xam ne ñun yëguñu fekkewuñu créel nañ ñu fi sax convocation mais lan la ñuy convoqué ak lu xew ak lu ñu def on est même pas concerné ci li ñu di wax yëguñu ko sax li Sénégalais yi di wax ak ni ko nit ñi déggee noonu lañ ko déggee ki am jafe-jafe nañ ko ñaanal yàlla yàlla defal ko sutura génne ko ci li mu nekk defal ko tawféex mais jékki-jékki rek tudd ci ay nit naan di woo nañ ko convoqué nañ ko fenn lañ ñu convoqué woon sax li xew on est même pas au courant de ça vraiment daal gars yi nañ dal naatal xool yi te yéeneente jàmm jàmm rek a neex jërë ngeen jëf wa salaamualeykum